salaamaaleykum suñu mbokk internetu Feeling Dakar TV comme ni ñu koy defee à chaque fois alors yaakaar naa ni ku ñuy daral euh, di suñu maman euh, kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal mu nekk maman Soxna ayda euh, tey moom lañu dalal luñ ko duñ def lu dul jox ko mu nuyoog mbokk internetu Feeling Dakar TV yi kay seetaan après ñu dëkk ak moom ci waxtaan bi maman ñu ngi di la ziar. Ah, asalaamaaleykum àdduna wërngal képp soxnaay da ngi leen di ziar leen jox seen wàccuwaay waaye di nuyu sama buntu ci sëriñ Touba Seexul Xaddim di sëriñ Mountakha Bassir di ko ñaanal yal na gudd fan ay gi neex na Mbàkke bala ay sa noonu laa koy ñaanalee njabootu sëriñ Saliou gépp yal na seen fan yu mel ni doj di ko ñaanal xalifa laayeen yal na gudd fan yàgg fi loolu te wér dugg tiwaawan bàyyiwuma kenn chrétien yi soxnaay de soxnaay de àdduna partou la ñëpp ko bëgg waaye jàpp leen ne maa leen gën a bëgg incha allah comme ni nga ko waxee noonu <laughs> yaakaar naa dañuy dugg ci actualité parce que ñun dañuy dañuy faral à chaque fois bu am amee rek dañuy ñëw doxantu ba ci moom euh, waxtaan ci ak moom. alors aussi maman lu ñu gis ni jamono ji euh, doy na waar ci diggante Fatoumata Fouta Tampi ak nga xamante mooy Thiaba nekk doomam fan yi ñoom ñoo ñoom ñoo yor euh, réseaux sociaux yi ku génn wax lii bi yaam génnee wax moom mu génn wax maman en tant que mère de famille naka nga gisee loolu. non man ko gisee ñi rafetlu ma ko. parce que bëgguma ci woon sax débat. Mhm. parce que man man man dama dama dama juddu am waajur. Mhm. am ay doom ñu xam ne maay seen waajur. Mhm. te doom mën na mag ku ne waaye mënut a mag ndayam. doom mën na gën ku ne waaye mënut a ndayam doom sax mën naa gën ndayam. waaye doom ju baax a koy xam. doom bu demee bay wàññanteeki ndayam weex weex. koo neeti comme sa moroomu ndey la du la jox mën a jox cër non amatul amatul sidit boobu maa ngi koy jéggalu nag moom caba parce que lépp à part de euh, éducation la mm-hmm. su ma gisee xale bu sàllalu mag sax mu mat la tànta nga sàllalu ko rek sama yaram dafay daw parce que dama teel a ñàkk waajur te dama koy jooy ba léegi mm-hmm. samay doom it ma jur samay doom jur àdduna Mm. parce que àdduna képp ku fi nekk jeune. Mm-hmm. ngay bu góor ngay bu jigéen man sa ndey laa. te jox nañ ma wor ma jox ma cër. Mm-hmm. ba tax na li ma gis ci caba moomu maa ngi jéggalu mm-hmm. rafetluwu ma ko ndax bu ko neexee mu saaga ma parce man waaw bu <laughs> ko neexee mun na ma saaga parce que li ma koy wax mun na ko bañ a arrangé te gis naa mu def ko waajuram mu jigéen kon su ma ko defee tamit garaaw dama koy assumer mais man dama dama choqué daal. dëgg la ma musuma déglu vidéo yi nag mais damay déglu ni teg ko sama yaram day daw. moment ah, comme ni nga ko waxee. parce que aw di ko déglu. Mhm, comme ni nga ko waxee euh, yow da nga teel a ñàkk sa waajur bu jigéen. boo mhm. gisee tey xale bu génn di wax loolu yaayam fi nga toog lan ngay yëg. mais du ma yëg dara damay xam ne suñ borom daa mën a bind te mën a jagle. Mhm. ñi mën a kott amuñu mbaam. parce que sa waajur wu jigéen mbaa maa ngi yee xale Sénégal ne dañoo nekk réew moo xam ne. lenn rek laay ñaax ñi nga xam ne ñoo yor réseaux sociaux yi ak ñiy jël nit ñi di leen permettre ñuy wax ñu leen di wane dañuy moytu di wane xale yi xale bu xawle bu xaw a doy mel nii parce que dañoo yor ay doom te fii Sénégal la dafa am nañu bindoo Sénégal boo ko waxee ñu wax bind euh, éducation Sénégal boo ko waxee wax nit ñi dañoo bëgg seeni waajur Sénégal boo ko tuddee xam ne ndey dañu am fu ñu teg ndey oh. parce que fii tey ku fi daanu sa ndey la ba max mhm. waaye doom du fi samp sa ndey la samp ba tax na mhm. su ma gisee xale bu am à de vingt ans mhm. sa trent ans matagul même bu amoon téeméeri at doom ak sa ndey yow dëgg la sa yaay bu la juree ci un an am nga am deux ans nga am mu am deux ans jur la nga am un an sa yaay la mag ndax moo la jur c'est que moom à chaque fois bi euh, ñu ko dégloo li li nga xamante ni yaayam def na ko loolu moo ko metti ba ba li yaa li ko yaayam def yaayam munul yaay munul def dara doom yaay. Mm. munul def dara doom. parce que nee na doom moo warut toog bay luqutu ay mbiri ndayam. Mm-hmm. fii doom ju ne am na fi. nee bu mu ëmmee doom yaayam dama ne moom munul nekk ci biiru ndayam di lijjanti li xew ci biiru ndayam moom ku ñu ëmboon la rek. Mm-hmm. man duma jox doom ci dëgg ci kaw ndeyam ndey ndey la. mais sànni bi est ce est ce dama ne ba ñu ko sànnee for nañ ko te ba nu ko foree daan na wax yaay. munoo dem ba am toll ni nga toll ba nga ne yow am nga doom ngay doog a toog di xool say weex-weex yaay. daa xamoon ba situation moo jàppoon yaayam ba mu teg ko. léegi ban message ngay jàll li may jàllale mooy li may jàllale mooy avant tout xale duma la jox dëgg ci sa kaw ndey. am na ñoo xam ne sëy nañu ba màgget amunu doom. Mhm. aussi tamit maman euh, Thiaba da nga koy gis mu defaat ay yeneen révélation euh, bëkk démb gis nañ mu génn ne Imam Dramé euh, da ko doon da ko doon sàkku ba jox ko vingt mille francs alors maman naka nga gisee loolu lépp rek dama ne doom ju fi daanu sa ndey la bëmax moom lu mu déggagul ci àdduna li muy xaar te déggagu ko raw mhm. yaay lu mu bon bon yaay la gën sa yaay bu nee dafa bëgg sàngara mhm. sa yaay da toll nañu ci waajur wu jigéen bu doon ne sa waajur wu jigéen dafa bëgg sàngara te ngay doom warmaal sa yaay bokk na ci nga dem jëndali ko sàngara làq ko nëbb ko te kenn du ko gis nga jox ko ko mu naan ba màndi nga tëj ko ci néeg dëgg la mhm. Mhm. mais aussi génnaar na ne maman daa am ñu nekk ci ginnaawam. xam nga man man man gis nga man man bëgguma ci xuusu daal man li ma mën a mhm. xuus mooy. man xaw ma Fouta Tampi. dama koy gis nii rek ci réseaux sociaux yi. xaw ma caba. xaw ma ci kenn mais man. dama teel a ñàkk waajur. te su ma toogaatoon tey ku ma jaay sa yaay ma jënd ko. Hmm. parce que ba léegi damay xalaat sama yaay di ko jooy. kon doom ju ma gis man nga samay doom. Hmm. dañ ma dañ ma bëgg. dañ ma dañ ma protéger. gis naa loolu bu dañu ma jege. dañu ma dañu ma yiir. Hmm. doom yépp nag laa wax. exemple rek bu nu xoolee Wally Seck ni mu mel ak yaayam jaaga. ak bëgg gi mu bëgg yaayam. nga xool góor ñi def noonu. nga xoolaat fi ñeneen ak i ñeneen ak i ñeneen. yow tey am na lu bari loo xam ne sénégalais yi mënoon nañu koo xam ba nuy jur doom. dañuy dem ba ne yaay bu demee ba feebar ba sonn wala mu dem ba mënatul a woddu doom ju jigéen war naa dugg néeg ndeyam woddu yaayam sang yaayam warmaal yaayam. Mhm. bu demee ba yàlla defal ñu loolu ñun jigéen ci sunu digganteeg sunu yaay. nga war a bañ a egg ci xawi sa war may yaay. Mhm. ku war a sàng sa yaay doo ko muri. dëgg ku war a wodd sa yaay doo tasub sërëm. Mhm. maa ngi jéggalu ci kàddu yi. Mhm. suñ demee ba xale bu am ase boo xamante ne ni sa âge eggagul fenn mhm. man tooñu ma kenn ñu xam nga kan moo ñu tooñ. parce que sama doom day seetaan sama yi moroom di seetaan te ñu ngi doon am formation boo xam ñu ngi koy dugal suñu doom yi ci biir kër kon waruñu di wan suñu doom yi yeneen i image. d'accord image yu yenn xale yi waruñu koy teg à publiquement. d'accord di ko wanee ndax jamono dafa yàqu. kon leneen lu ñu ci delloo si ci lu koy yàq ñu koy teg ci télé bi di ko di ko di ko wane man pour man lu gën a yàq société bi la. Mm-hmm. alors comme ni nga ko waxee euh, xale bi génn na nee na moom daa am ñu nekk ci ginnaawam di ko wax loo dem na ba tudd tur tudd ki nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy Mati Trois Pommes aussi tamit euh, tuddaane ki nga xamante ni moom mooy Gabriel Kane ñoo nekk ci ginnaawam di ko wax loo lu muy wax yooyu yëpp dañ koy wax loo ndax nga gisee loolu jàpp doomu jaamur di ko utiliser comme moom ni mu ko waxee. non man li fondement bi yëpp mooy fii kenn ku ne. Mhm. yaa ngi téye sa yaay wodd ko man xam nga jigéen. jigéen laa ci xam war ma laa ci xam. mais tamit maman ni mu waxee est ce nekkul amuñu nekk. ci ginnaawam mais loolu loolu ma ci jugé parce que moom bu demee. ba matal bay dugg ci defutu yaayam xam nga ko wax la ñëpp dañ koo gunge waaye moo ubbi ñooñu koy ubbiloo ak ñi ko wax loo du ci mën a jugé lenn parce que dégguma ñu ne ñoom man maa ko wax loo. parce que ñooñu am nañu ay yaay non ñooñu am nañu eh, am nañu ay yaay am nañu ay doom te seeni doom def defuñu leen noonu man du ma tooñ gis nga wax mm-hmm. benn soble bu nëb day yàq saaku benn pombiteer bu nëb day yàq saaku image yooyu ki ñu ko wan bañ ciy am gëstu yi laa ne la bu ñu ko wanati dañoo am ay doom nekk ci société bi. Mhm. te xale yi léegi am nañu benn jikko boo xamante ne ni ñu ngi defar te pareeguñu. kon bu nu indi leneen lu bon. duñ ci doon te dañoo gis ne xale bi aussi tamit dafa di ko Sénégal yi di gisee ah nee moom dafa xaw a wow bët yooyu noonu. parce que bu toogee di wax li mètre pour trois pom naan ko ay affaire de lesbienne nag yooyu courant ngay jël di ko utiliser est-ce ma moom xawul am li nga xamante ni moom mooy fit bi nga xamante ni war na génn di ko wax tamit benn côté. mais da ngay yàqute doo ko yëg alku day am sa yaay. Mhm. mu juróom-ñeenti weer. nàmpal la sang la ba ñu mën laa xool bët pattu tànk sooxut mhm. nga toog. Mhm. nga toog. jël sa yaay ni ko xaabi. di ko di ko limbat. Oh. gàllaaj bi njëkk ci doom mooy waajur. prothèse bi njëkk ci doom mooy waajur. Mm. doom yi nga xam ne tey ñi ngi fi samp ba boo leen bëggee bëmax du ñu daanu du ñu raf du ñu cëppeelu ndaya ko def ci ñoom. man huit ans laa dund ak sama yaay waaye sama gàllaaj mooy sama waajur. dëgg man gàllaaj bi njëkk ci man mooy waajur wu jigéen. Mm-hmm. kon te sa yaay di ko xawi mm-hmm. sama yaay nii la jur ak sama papa sama yaay nii la nekkal sama sama Mhm. sama yaay sama yaay sama yaay di xaawi sa ci xale bu jigéen nga war a am ay doom moom addunaam yàqu na te ko mhm. nit ñaa ngi koy filmé di ko wane mais xam na ne moom mi ngi yàqu te yëgu ko est def moom moo ko tay aussi non mais alku day feeñoo nu ne man lii man man man man man man comprendre tuma parce que lii sàngara mënu ko def ci nit yàmbaa mënu ko def ci nit drogue mënu ko def ci nit xanaa mhm. loolu mooy problème bi dañ ko war a yóbbu tëj ko fajaat ko xool lan mooy problème mu boppam lan mooy taxawaay yaayam Fatoumata moo Tampi lan mooy moom waru ko sax tontu. Mhm. mais xam nga doom fii Sénégal la. Mhm. Euh, bu ñu bu lay njëkkee jib yow booy wax sa doo ko tey. parce que yaay la bu demee bay jël doomam di tontonteeg moom nekkatul tayif quoi. Mhm. nekkatul sagoom tamit. da nga koy xool mais da ngay xam ni yaay la. yaay dafa neex man dama bëgg sama yaay. waaw oh, ndeysaan. bëgg sama yaay. Oh. kenn du jur di bañ doom dafa sax ci xol. ndeysaan. ba tax na. li si nekk yàlla na ko yàlla soppi. nañu ko ñaana loolu moo gën seetaan. ndeysaan comme maman ni ko waxee da nga bëgg sa yaay tey lan nga ñu mën a wax si digganteeg sa yaay ba tey ji xale bi nga xamante ni day jug di def comme nii ni mel euh, bu la seetaanee rek wala mu dégloo dina gën a jàppaat ki nga xamante ni mooy waajuram bu jigéen. sama yaay dafa ma dimbali. ndeysaan. Oh. sama yaay dafa ma dimbali ma dimbali lool. moo ma def ni ma mel tey. Hmm. tey bu àdduna bi taxawee. ñépp bëgg ma nii ñu ma bëggee taxaw ma nii ñu ma taxawoo. Hmm. sama yaay moo ko def ci man man sama yaay. ndeysaan hmm, day nekk li nga xam day day waar ah, suñu maman ndeysaan comme kon mu ko waxee dafa bëgg yaayam moo tax tey jii boo ko laajee ci loolu dafa jooy parce que nee na bëggul gis ki nga xamante ni ñu jot a gis seen waajur yi. ndeysaan ñu jot a gis seen yaay yi ak ñoom nanu nanu. Hmm. nanu bu baax nanu. ndeysaan nanu sàmmanteeg waajur yi. dama teel a ñàkk waajur mais dama. ku ma mhm. jaayoon sa yaay dama koy jënd waajur dafa neex. ndeysaan. oh bëggee ñu woon ni émission waajur yi tamit nañ téyewaat njaboot gi bu baax a baax. te boolewaat njaboot ki boolewaat seen i njaboot xëccaat leen taf leen ci seen bopp doom mhm. alalu yàlla la ndeysaan alors comme ni ngeen ko waxee euh, mu nekk li nga xamante ni euh, message bi am solo la parce que moom bu demee tey bay toog di wax ci yaayam di di di tuur ay xewal comme moom am na fu mu tolloon yaayam yaayam aussi am na fu mu ko tolloon ba tey ji dañuy ñaan rek tey yéen xale yi nga xamante ni yéen a ngi di di wax leen seen waajur yi lii war na mën a euh, jox leen exemple bu bu baax baax a baax moment nga baax ñu tuuti rek nga nga nga joxe message bi rek xam naa dina xaaw a metti mais nga joxe message bi pour xale yi. fonk rek fonk seen yaay yi jege seen yaay yi. tafu seen waajur yi jigéen yaayam mooy gàllaajam. te nit da ngay tafu sa yaay. Mm-hmm. tafu sa yaay bokk na ci nga bëgg lu sa yaay bëgg. Oh. lu sa yaay fonk nga fonk ko waaye fonk sa yaay wormaal ko. boo mm-hmm. wormalee sa yaay sa àdduna day wormawu. ku mës a toggal sa yaay wala nga mës a raxasal sa yaay wala nga mës a fóotal sa yaay sa àdduna na la wóor ne doo dajale yére bu tilim mukk ci àdduna doo tilim ci biir te doo tilim ci biti mm-hmm. waajur mooy fondement bi nga xam ne boo ko fayee boo ko lebalee mu fay la 40 yoo xam ne du am retour mm-hmm. waajur dafa neex. ndeysaan waajur moo dàq lu yàlla bind ci àdduna. ndeysaan dama ko teel a ñàkk nag mais li sama yaay defoon ci man. ak bëgg gi ma bëggoon moo may gunge ba léegi. Oh. parce que yaay dose la. ndeysaan. ndeysaan ma mi def émission bi sax sama yaram euh, mi ngi daw parce que bëgguñu woon lii dañoo bëggoon waxtaan ak moom rek mais xam nga rek comme ni ma ko waxee yaay dafa dafa dafa fort ci doom dafa sonn ci doom euh, bu ñu émission bi maman am na yu bari yi nga xamante ni war nañ ko war nañ ko mën a nañ ko mën a waxtaanee nga jàpp ñu tuuti nga xaw a dëgg tuuti rek njeggali émission bi xam naa comme ni ma leen ko waxee ñu ngi jégalu bu baax a baax parce que lii dafa nekk li nga xamante ni. ñun war na ñoo mën a dimbaliwaat ñi nga xamante ne mooy suñu waajur yi parce que comme ni mu ko waxee jàpp sa yaay di ko di ko yàq lu ne nga koy wax képp ki nga xamante ni ñàkk nga yaay aussi tamit euh, boo ko déggee comme ni la lay def di nga am li nga xamante ni dina la metti trop trop mais moment nga baal ñu tuuti rek euh, ñu yeggali émission bi parce que parce que bëgguñu bëgguñu bëgguñu mu demee nii. alors yaakaar naa ni fi ñu kiiwaate rek ñu demaat ci kaaw <laughs> ndeysaan comme ni ma leen ko waxee man instant yi sax amatuma sax lu may wax parce que émission bi mun naa ni bëggu woon na mu demee nii mais maman dimbali ñu rek nga ñu yeggale émission bi parce que lu ñu war a wax bari na trop trop trop trop trop. Mhm. Mhm. <laughs> maa ngi jéggalu de. comme ni ko waxee man mi sax comme ni ma ko waxee touché na ma quoi ci benn ci benn côté mais mun ñàkk parce que say waa waajur booy wax ci moom dafa nekk li nga xamante ni ci xol lay jugee te bu te bu fa jugee rek ci xol lay dellu alors aussi maman bëgg nañoo génn fi nga xamante ni mooy foofu dugg fi li nga xamante ni actualité tamit ci cadre Khaliphone Sall ak ajaa Thiaré maanaam euh, seen viol bi ñu waxoon tey taxaw nañ ñu. tëj ki nga xamante ni mooy Kaliphone Sall un mais un mois lay tëdd yi ci des yëpp suuf si la xëy euh, la xëy tëdd aussi amende euh, cinq cent 500000 alors moo nag nga gisee loolu cas viol yi nga xamante ni léegi bari na fii ci Sénégal. waaw góor ñi te xoolaat jigéen ñi bëtu yërmande rek. Mm-hmm. comme li ñu doon wax léegi rek xam ne am nañu yaay am nañu frère am nañu sœur. am nañu bàjjan am nañu lépp ñoo am yërmande ci jigéen ñi. Mm-hmm. parce que jabar ji nga takk sax. bu bu tollee jigéenu wérul sa yaram dafa war a daw xam ni sa yaay jaaroon na ci. moo tax nañ dellu siwaat xol yi. <laughs> xam ni réew maa ngi yàqu. defaraat ko. <laughs> te li nga yéene sa bopp nga yéene ko ko jàkkaar lool. <laughs> ndax xale bu jigéen ñi tamit ma leen di ñaax ne leen ñuy toog ci seen wetu waajur yi. bu guddi jotee ñu toog ndax kenn du fekk kenn du fekk nit ci yaayam di ko violé. te ci oto sax la la la euh, dama ne. Mhm. kenn du fekk nit ci néeg yaayam di ko viole dëgg la kenn du fekk nit ci kër ndeyam ak baayam di ko violé. Mhm. xale yi nañuy toog. gis nga mhm. lu ñu la deful 5 heures. defuñu la ko 6 heures. ñu la ko defee minuit yaa ko wuti. dëgg la. ban message ngay jaarale ci loolu parce que mën naa. dama ne jamono ji viol viol bi xaw na doy. dama ne fii suñu dëkk senegal dama ne. reer tëdd. dara da ko gën ta noppale. dëgg la reer tëdd. Mhm. kenn da dara da koo gënut a neex. Mhm. ku dox ba minuit une heure te doxalu la sa yaay yónni doxalu la sa papa yónni. Mhm. buñ la violé dañ laa war a tëjaale. mais des fois ñi cherché violé nag xale yi jigéen yi des fois même maman lu ne. am na ci jigéen ñoo xam ne sax ñooy foofu laay waxee. am na jigéen ñoo xam ne ñooy violé. parce que munoo sol loo xam ne da ngay da ngay attiré ki ngay taseel. ci benn heure boo xam ne tasewoog ndey tasewoog baay. sa yaay juddu na ba màgg musta dem ci millier boobu nga dem fa guddi. kon lu la fa dal yaa ko yóbbu sa mhm. waaw. Mhm. laajaat ma leneen. <laughs> comme ni mu ko waxee rek ah fi ñuy dugg mooy li nga xamante ni moment mooy ak actualité duñ ñëw te te duñ la ko laaj. komba bi dox ci diggante euh, Boy Niang ak Balla ku nekk ngi génne di wax naka nga ko gisee combat boobu. komba boobu li ma ci mën a wax yàlla si yàlla def jàmm. Mhm. ñu bëre ko ci jàmm. ku ci yàlla may ndam nga xam ne yaa ko moom mu jëg la mel ne ndoxum galaas si yow. Mhm. xam nga ba ma doonee soxna Aïda Saliou les grands vaillantes ba doon ajaratu de vaillante de peuple <laughs> musuma wax connerie ci lu jëm ci làmb mhm. ndax sama personnalité mayuma ko sama jëmm mayuma ko mhm. sopp gi ma sénégalais sopp mayuma loolu komba euh, dafa yéeme Balla Gaye fu mu dëkk géejawaay may doomu parcelle am fi njaboot yàlla dogal ma juddoo Pikine samay mbokk ay bëri samay doom ay bëri. Mhm. samay frère ay bëri. Mhm. mais moom face à face ni Boy Niang ñemee na face à bi neex na. mais nu booy Niang ñemee Balla Boy Niang bu ñemee Balla Gaye c'est normal parce que il faut que mu wane boppam ndax ndaw la. Mhm. Balla gay tekk moo ko ci mën a dugal dafa war ne tekk war a tontoon teg moom. ndax booy Niang rakkam la. daf ko war a bàyyi mu jëmile bàyyi ko mu yëngal bàyyi ko mu def gestam parce que noonu la doon defante ak i magam. dëgg la. Mhm. moom Boy Niang loolu rek la war a def. Balla mhm. Gaye ni mu def rek la war a def. d'accord kii mooy booy. waru mhm. faa nekk di kërti kërteeg moom di gën a may booy bi fit. kon da nga jàpp ndax booy bi xam na ne foofu bëri amu fa waxtaan a fa ne. d'accord ci biir waxtaan bi moom il faut mu jumeler. pour am lu mu yóbbuli mbokkam. naka nga gisee Boy Niang ne une minute day daan Balla Gaye. ma ne booy ñaa bu ko neexee sax ni ko seconde <laughs> ndax foofu signature la du bëri. mais luy xew ci signature. lay xew nag ca bëri ba lu ne mën naa xew. Balla Gaye mën naa bàyyi ba ca bëre ba mënu ko kaay booy du ma sa morom ndax Balla loolu jaaxalu ko. Mhm. booy ñaa it mën naa dugg ba ci biir géew bi yàlla ànd ak moom may ko ndam. Mhm. ku nekk war a mën a am ndam ci ñoom ñaar. Balla Gaye ak Boy Niang ñoom ñaar kenn ku ne war nga cee ndam ndax kenn ku ne bërikat nga. Mhm. te ku ne doomi senegal la. te ku ne mbër kaamil nga kon bu nu bu nu defee signature daa war a neex. signature bi moom du combat bi bu ñu signature. daa war a saf sap. Pikine ak Guédiawaye. Mhm. mais foofooy bëri. mooy dër bi. foofooy dër bi. foofu foofu foofu. waaye tamit. <laughs> comme ni nga ko waxee mais maman affaire bi tamit dañoo gis ci ci. dafa am dafa am rythme. dafa am rythme dafa am pënks. pënks mhm. day neex ci combat. day jaay sax combat parce que. Balla ku ko xam-xam ne dafa mën bis. Mhm. ah waa Eumeu Sène bu Boy Niang di ñëw. nga ne Ama Baldé ne Pikine. dëgg la mais Pikine. Boy Niang yebul waa Pikine sax ba war a mën a ñëw ci kii bi di di di di ko gajafal di noyal quoi. dafa war a neex. <laughs> mbir mi dañoo dem ba ci biir mu dëgër këcc nooy nooyul de dafa dëgër. d'accord. Mhm. mais aussi euh, maman mm. gis nañ ci combat bu lu bari comme yéen ñi nga xamante ni yéenay liggéey ci wàllu loolu gis nañ ci ay ay génne ay saraxu fas yu weex comme ni ko Pape Sarr waxee ne Balla Gaye dafa génne sarax bu weex yéen ñi liggéey loolu naka ngeen gisee loolu. fii ku fi bëri saraxe kuy bëri saraxe say mbokk saraxeel la say nawle saraxeel la. Mhm. mais dama ne. Mhm. mais maman fas bu weex moom yaakaar naa man maa ngi doo gis. ci dama ne sarax mun na nekk lu ne. li ma la wax rek laay wax ci ñi ma séqal liggéey bi du ma tilimal liggéeyu kenn du ma tilimal saraxu kenn duma ñaawal daray kenn. Mhm. mais li ma mën a wax mooy soxna da paase na fu muy toogee ci réew mi daray àdduna walla daray weccatu doomu aadama wala daray bës. Mhm. war koo mën a jaral. muy toog teg pettaaw mi teg la yomb bi di xool Pikine nag Parcelles. ami soppe Pikine ami soppe Parcelles ami soppe Guédiawaye ami soppe Pikine di toog di wax naan Balla Gaye day daan booy Niang mm-hmm. wala booy Niang day daan Balla Gaye mm-hmm. du sama cër du ma ko def mais wàllu sarax bi naka wàllu sarax ñoom ñaar ñëpp dinañ def ay sarax te ñoom ñaar ñëpp dinaa leen waxi sarax waaye sarax ba mooy la may def ba Sénégal am jàmm ba ñu bëri ko te du am violence mm-hmm. ba ñu bëri ko te du am ñàkkante ba ñu bëri ko te du am ñaawteef loolu dinaa ci wax ay sarax waaye kii ay daan ak kii di daan. Hmm. maa mag loolu. mais sarax bi yaa defal sa bopp wala da ngay def sarax. sama alal laa jël propre moyen def sarax ci réew mi man loolu laa xam. ci Boy wala ci Balla Gaye fàtte ci Boy Niang wala ci Balla Gaye. maa fàtte seetkatu Sénégal yi maa a pare. waaw <laughs> borom jinne amul junni doo am jinne. dëgg réew mi. may mhm. génne bu seer defal ko sama askan gratuite. d'accord mais eh. mais mais nekk jëmmuñ ci Boy Niang jëmmuñ ci Balla Gaye. dama ci ñoom ñaar. ndax ñaari doomi réew mi lan mm-hmm. nit mën naa sumeeku ba dugg ci biir làmb ji war a bëre mm-hmm. ngelawu seytaane ne ko fis yàq ko mbaam tànkam crampe kon da ngay génn sarax ndiggam bañ mm-hmm. mbaa mu bëgg a tourné loxoom bañ loolu yëpp ay xeetu sarax la kon yow sarax bi yow ne tegoo ko xanaa man am na sarax yoo xam ne boo ko génnewul day mujj ñaaw te man duma xaar ba mu ñaaw ba noppi dëgg la déedéet da ngay jug tamit ma koy defar bala muy ñaaw d'accord su ma xaaree ba mu ñaaw ba noppi dama koy defaratee. Mhm. kon ñun bu ñu déggee sa position mooy xooloo ay saraxu fas ak yooyu yow. sa sarax mooy xaw ma nag xaw ma pison xaw ma fas xaw ma ceeli gis nga fi mu ne nii waa sarax wu ne di nga ko dégg. Mhm. waaye nanu dimbali rek ba bu ñu rey. Mhm. combat bi maa ngi ñaan ñaari mbëri bu kenn rey. mais maman mystiquement naka nga gisee combat boobu. combat bu bu bu bu neex lay doon. ci. yàlla nañu dimbali ba yàlla def ko mu am. Mm-hmm. yàlla nañu yàlla dimbali ba mu am. Mm-hmm. dégg nga. Mm-hmm. yàlla nañu yàlla ba mu am. mais am nga yaakaar ni combat bi moom dina am. gars yi nañu ko laa dégg lañu tuddee Papa Thion. di bàyyi waali. boobu day neex xam nga ne combat boobu day neex. combat boobu du am violence. ndax ki ñu ko tuddee. nekk na ci réew mi ba jóge fi te violence amut. nekk na ci réew mi ba jóge fi te ñaawteef defu ko fi. bi mu dëddoo sax lañ dégg lu bari. ndeysaan tey lu bari daawul am. comme ni nga ko waxee Papa Thione nekkoon. Euh, monument ndam si yàlla si nañu sóoraale ki ñu tuddee drapeau bi. Mm-hmm. tey yan ngay yan ngay wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy topp mbëri ku ci mel ni euh, waa Géejawaay wala. xanaa ñëpp silwise nag. nga mm-hmm. xam ne drapeau day wuyu boroom. dëgg la. na ñëpp silwise. Mm-hmm. ñëpp dawal euh, RSP. ñëpp def kuul. ñu silwise rek nag nuru borom drapeau bi. bëgg lu baax rek nuru borom drapeau bi. Mhm. sañse rek nuru borom drapeau bi. te drapeau boobu xam nga ni stade bi day xat. waaw di yomb. <laughs> ndax ku mel dinaa dem te ku mel ni man dina dem. di nga dem stade moom. man. tuddee Papa Thione dara may nelaw da nga fàtte doomi Papa Thione ma woon Seydouna Mouhamed. ndeysaan oh. sama doom. ah. luñ tuddee Papa Thione dañ koy jëlaat tuddee ko suñu bopp di. yoo xam ne da ngaa ah mi ngi ñaaw de <laughs> mi ngi ñaaw de moytul mu ñaaw ba noppi. <laughs> mi ngi ñaaw à chaque waa su ma defee boobu émission dafay am contentement parce que li muy génne day am solo ba pare émission dafa deex da ngay kaf da ree yooyu yëpp ci biir di ko ñaanal aussi lépp li nga xamante ni bëgg na ko suñu borom defal ko ko. mais maman aussi am na fu ñu bëgg a taxaw ah, ci affaire euh, sa Moustapha Sy bi bëgg nañ nga jàllale ci message parce que ku nekk nga génn di wax li nga xamante ni euh, waru koo wax ban message ngay jàllale ci loolu. Ah, man nag damaa bëgg kilifa yi ak mag ñu baax ñi mm-hmm. ba tax na duñ la may lépp nga jël lépp dafa am du sama gaam dëgg la du ma ci dugg mm-hmm. mais ban message ngay jàllale ci ñi nga xamante ki ma yaakaar man bu jëf ji baree moo ma waaye bu mm-hmm. wax ji bare du moom muy sëriñ Saliou te ci defar rek lañ ko xam defar boobu moom moo tax. loolu dama koy bàyyi waa defar rafet euh, defar jikko yi ndax waa defar jikko yi li ñu war a defar bari na fi mu ne te ñu ngi ne tekk te danoo war a jug nag kaa yi seen kaawa nan ko réglé dama laaj ko waa rafet defar jikko yi. <laughs> man defar éducation yi laay def waaye jikko yi ñi ko yor. Hmm. ñoom ñoo ji bind carte adhéré def ko seen benn coalition ñoom ñooy defar yooyu man yooyu sama yu nekku na ko paa yi réglé. yooyu yëfi paawa yëfi defar jikko yi la ñuy defar jikko yi nan ko defar ñoom seen ñaari kaa xaw ma ñetti kaa ñoom fi ne danoo bari cas te ba léegi dafa gunu sorte nañ def sorti nag. génn wax waaw. ndax mm. kii ñu rey ci ci ci jumaa ci defar jumaa ji ci wetu Pire. Mm-hmm. loolu tamit seen cas la te déggaguma ñu wax ci. d'accord tey maa ngi leen di déglu. Mm-hmm. waaw alors yaakaar naa yañ daan wax. Mm-hmm. daa xaay waaye bii ñor. yu ñor yaa ngi ñu leen di xaar ñu leen di déglu déglu alors comme ni mu ko waxee ah, ñu ngi ñuy xaar ñu ñuy déglu xam naa ci kanam tuuti rek comme ni mu ko waxee dinañ dem dalal ki nga xamante ni mooy suñu maam maam Matar Gueye Jamra alors maman dool doon wax ni am nañ mbégte ak contentement trop di la dalal suñu suñu plateau lan ngay tàggatoog mbokk internet Feeling Dakar yu lay seetaan ak ñi la bëgg di leen wax ne rek man ñëpp ma bëgg xol boo ubbi soxna Aida moo fa nekk moom Serigne Saliou mhm. ajaratu soxna Aida moom Serigne ndax sama doom ji Waly Seck moo ma teral du ma du ma gëj di ko wax du ma noppi di ko wax ndax moo ma won lu ma mës a gis. Mm-hmm. moo ma won lu saa ndey gisul moo ma won lu saa baay gisul ndax moo ma won Seydunaa Muhammad mm-hmm. kon maa ngi koy ñaanal yal na gudd fan. Waly yàlla na wér. Waly yàlla na am jàmm ak ku ko yéene. Mm-hmm. Waly yàlla na yokk ba toll sorooru Touba ba ci barki Seexul Xaddim ah, di ñaanal sénégalais yi bëgg gun ma bëgg bëgg ma leen bëgg ko raw. waaye nañ delloo siwaat xal yi. te bëggante te soppante te ku ne la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom foofu lan toll ci réew mi te te ñaan yàlla sunu mag ñu baax ñi yàlla bàyyi leen fi boo xoolee ni Touba Mbakke màggal gi mel ni mu tawee nga xool gàmm guddi yonent bi ni mu tawee nga xam ne mag ñaa ngi defar seen bisi yi kon nan defar sunu jikko yi ni ngi raxas ni ngi raxas nanu raxas ñu nit ñu raxas daje mu rafet at mu solo da ngay wax ëllëg ñu lay déglu ëllëg ñu teg sa waxi démb di la déglu kon na rafet man nag ñëpp laa bëgg ñëpp laa yéene jàmm li ma yéene sama bopp laa yéene jullit yëpp li ma bëggal sama bopp laa bëgg ñëpp man nit ñi rek laa bëgg barke Sëriñ Tuubaa na ngeen ma ñaanal damay ndaw ti doog a door ma bëgg ngeen ñaanal ma ma gudd fan te te yàgg fi lool ndax lu ma am senegal la jëm ak waa Keppaaru Soxna Aïda Saliou maa ngi ci 10 000 femmes ñu wóolu ma jox ma seen bopp ak góor ñeek jigéen ñu ànd liggéey sunu réew. Mm-hmm. ah mm-hmm. waa léegi nag. nañ def mu rafet lu ñaaw waruma su dee dara def ci ñaaw maa ngi jéggalu di tuub waaye bu dee dara rafet na nañ ko partagé merci beaucoup comme ni ngay waxee nee naa leen man à chaque fois damay am mbégte lool di ko dalal suñu plateau parce que boo ñëwee ci moom waxtaan ak moom euh, yaakaar naa di nga am di nga xamante ni di nga ci jariñu ñi ci seetaan tamit dinañ am di nga xamante ni diñ ci dinañ ci euh, jariñu ci di ko jaajëfal di ko wax ni nit ku baax la à chaque fois bu ñu bëggee moom émission bu ko woowee rek euh, dañ naa ñëw leen parce que yéen suñu doon pare man foofu laa bokk